عليه صلاة سلما أبدا حتى كمالات حبيك يا الله صل عليه صلاة رب كاملة حتى قفاف في حلم الله يا الله اغفر لأمته وارحم بأمته واستر لها واجبرها مع ربي الله yàlla mi la ko jox nag moo lay jàppale ak say rakk yàlla na yàlla yàlla guddal sa fan nee na mu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal sa fan nee na fii la sa yaay newoon fii la sa baay newoon fii la sa baay newoon yaakaarul woon ne tey di nga egsi ne yaakaarul woon ne tey di nga egsi waaye ci coobare yàlla egsi nga yàlla na nga yor yëpp nee na allahumma salli ala sayyidina Ahmad nee na ngeen baal ko ak nee na gënu ci le daf ci mag rek yor baat bi nee na ay nawle ba fi ne Maodo ngi nii Maxtaar ngi nii ñeneen ngi ci biir waaye li ko dalee ci ngor waaye li ko dalee ci ngor ba ba dem bi jëm lébu yëpp yaa ne ci seen kanam yow sëriñ bi yow xalifa bi nee na ci tarixa tijaan bi yaa ne ci bopp bi nee na yal na la yàlla dimbali ci kàttanu yonente bi ci barke Cheikh Tijaani ak sa barke bay sa barke maam Baye Alaaji Malick. Alaaji Malick. fii la daan toog. Tisbaar. du fi jógee. bu fi jógee. géewee jot. kuy toog Tisbaar. kuy ba géewee jot. ba nga soog a mën a jóg. a mën nit. wala ndimalal yàlla. wala ndimalal yàlla la. yàlla moomu du fi jóg mukk. yàlla na la jàppale. bi jaay si dul bu jë jërëjëf. bismillahi rahmaani rahim. addiya bi am na kamit bu nekk waaye bu jógee ci sa moom mu fii di day loolu fii mu nekk bii tali bi ñoom daayiraam day dàll ñoom ñoo ko jox mbay xale ko ak yeneen nag barakallah fikum jazakumullah xeer asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, mbokki jullit yi fi daje yépp ñu commencé ko ci ilimaanu jàkk ji di Ahmed Seck Diop ak ñi topp ci gannaawam ci ay ilimaan nuyu itam ilimaani raati bi Dakar di alxaaji Maodo Sylla nuyu suñu baay yu tedd yi toog suñu baay mbay bin tapay suñu baay alxaaji maxtaar suñu baay alxaaji abbas suñu baay alxaaji abdu qadir njaay ak mbooleem magi zawiya bi ñu ngi leen di nuyu di nuyu jamiya bi nga xam ni moo fi nekk te suñu mbokk Dudu Njaay nekk ca seen bopp nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ni teew nañ fi ñu di ci ràññetle suñu ministre bi toog di Abdoulaye Makhtar Diop ak ñi mu àndal ci wàllu nguur gi yépp gouverneur de la région ak ñépp di itam suñu mbokk yu tedd yi nga xam ni ay libaane sénégalais lañu yi teewal leen fi ak Mouhamad Barout si mi nga xam ni doomu Alxaaji Abdul Aziz la nuyu mbooleem ilimaan yi Dakar yépp yu cëddeem yéeg yu mbot yéeg yu yàq jëfëk guy salaan ak tabaarakallaahu daal ba ñu daj euh, ni itam mboolem ñi fi teeg ci ay kilifa yu ñu tudd yu ñu tudd ndax itam ba nu ñu tudd ñëpp waaye ba ne asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu lamb na ñëpp tabaarakallaahu nuyu ñëpp nag tabaarakallah nuyu délégation bu tedd bi nga xam ni itam ñoo fi teewal suñu baay bu tedd ba ca Touba di suñu baay Serigne Salih Mbacké yal na ko yàlla may gudd fan ak wér nuyu soxna yu tedd yi yëpp tabaarakallah présidentu daayira bi imam tudd léegi ak suñu yaay dara xaajatu aram jéen ak ñi àndal yépp xalifa bi mi ngi leen di nuyu man dama koy ubbi rekk jox ko kàddoom mu wax ak njabootam nuyu leen ziyaare leen famille bi yëpp teew nañu comme ni ngeen ko xame Sidi Ahmed Sy ngi nii bu Serigne Babacar Sy Serigne Babacar Sy muy alxaaji Mansour a ngi nii Serigne Xaaji Malick bu alxaaji Abdoul Aziz Sy ngi nii suñu mag nun ñëpp di alxaaji Moustapha Diop mi ngi nii toog Serigne Abdou Karim Saara nga nale jóge ca Louga toute la famille si teew nañu ñoom Serigne Mamour si ñoom Serigne Cheikh Ahmed Tijane si si ñoom Baye Alxaaji Xumma Serigne Xaaji bu Serigne Moustapha ngi nii ànd ak rakkam yëpp Serigne moor Ndiaye bi nga xam ne tey moom la ñuy xoole Serigne Moustapha ak njabootu Serigne Moustapha yëpp ñëw nañu teew tabarakallahu suñu waa kër Baye Alxaaji Seydi Diop suñu waa kër Baye Moussa Alek Dagor ak ñëpp tabarkallaa ñu ngi teew ca nañ ko daan àndee suñu góor gu tedd ga suñu mbokk nu ñëpp di Alxaaji Mansour Mbay mi ngi ni toog waa coordination bu Dakar alxaaji Assane Diouf nekk ca bopp ba ànd ñoom alxaaji Babou Yande alxaaji Makro ñoom ñëpp teew nañu euh, njaboot yëpp tabaarakallahu teew nañu ci bés bii nga xam ni tey bés bu jaadu la tey Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu ñetti ndono la fi bàyyi spirituel bii moo di zawiya ba ca ndar bii moo di zawiya ba ca tiwaawan bii moo di zawiya bi ca Dakar ñetti zawiya yii la daan wax ni fekk naasiril xaq bil xaq mi ngi fii jib sabaaxan wa masaan waa Sénégal yàlla mën na leen defal sutura yàlla dogal itam comme ni ko suñu bàyyi mbay binta waxee fii la daan xëy si toog tisbaar ba guddi fajar mu yeew ci njël sama papa Mansour gunge ko mu ñëw man yaa ngi nettali na am na bés mu yeewu muy taw taw bu metti ci njël sama papa Mansour ni ko bàyyi taw bi bari na négal ba mu siwet mu toog dix minutes jógaat taxaw mu ni ko siwetagul de mu toog cinq minutes jógaat taxaw bàyyi alxaaji Cheikh Ndiaye Mabé yal na ko yàlla dolli leer ni ko bàyyi lii Mansour wax dëgg la de taw bi bari na mu ni ko Mansour seetal ñi front ba boole taw ak sedd ak i bal te àdduna rek lañuy wut mën ma bëgg àdduna ak àllaaxira bali taw rek te maa dem jàkka dem na waaw alxaaji Maodo Touré mu sëñ Hadi ñoo ànd ci oto bi maag moom ak sëñ Mansour mu ngi nii toog <laughs> fekku na ba taay waaye sëriñ bi ko par force nga dem mu ngi muuru. waaw waaw ku ne dégg na la tabarakallah euh, Baye Alxaaji Moussa Diagne nettali na ma mu ne dafa amoon garab gu nekkoon fii ci buntu zawiya bi mu ne Seydi Alxaaji Malick bëggul woon ñu fiy toog di def grand place parce que grand place jëw rek ak wax lu sa yoon nekkul moo tax mu garaaw mu ni nag bu fi fekkee mag ñi rek dàq leen buñ ko séenee muy ñëwit ñu fa toogee ñu daw mu ne ba bés mu nekk ci biir zawiya bi mag ñi nekk ci garab gi mu dégg leen ñuy wax mu jékki-jékki rek génn ba ci bunt bi mu taxaw mu ni garab gii garab gii garab gii dellu si toog ne ca ngoon garab gi commencé paal ne noonu la xob yi jaune ba wadd ba jeex garab gi foofu la doxee dee man ni ko ñetti garab gii gu Seydil Xaaji Maalik xajul ci benn garab tabaarakallaahu loolu mu def ko fii ku ne xam na ni ismullahi alazam ba Cheikh Ahmed Tijani taxawale zawiyam ba moom la taxawale zawiyam bi te cheikh dafa waxoon ni alsalaatu fi zawiya maqbulatun qatan mu ni sama zawiya bi ku ci julli ak noy ci jullee nangu ko Seydi El Hadji ñaan ni wa kullu ma lahu min alzawaya alxaqaha allahu bidil mazaya mu ni kon nag zawiya bu cheikh am rek yal na ko yàlla yéege ci zawiya cheikh ba ba ku ci julli yàlla nangu ko ba mu ko ñaanee sëriñ Babacar si ni ko du ñaan nangu na ba noppi kon ñaan lu ñaan nangu na ba tax na zawiya bi ku fi julli asalaatu fi zawiya maqbulatun qataan ku fi julli yàlla dina ko nangu ak noo jullee nag te maa ngi fàttaliku benn at Seydi Tayib ñëw fi keroog fii ci zawiya bi alxaaji Saïd Nooru Sëriñ Babacar Si sama baay alxaaji Mansour ak sëtu Cheikh Mouhamadul Ghali ñoo fi daje keroog ba ñuy waxtaan ba tàkkusaan jot ñu ni tàkkusaan de jot na Sidi Tayib ni zawiya bi de Cheikh Ahmed ngi fi mu Mouhamadul Ghali ngi fi ndax sëtama nga fa wan keroog El Hadj Fuutiyoo ngi fi Cheikh El ngi fi mu ni ñeenti ñi ne ku ci jiite baax na Sëñ Babacar ni ko yaay sunu gan di sunu doomu sëriñ kon yaa war a jiite ba mu jiitee ba àggal mu ni càllale kër Cheikh Ahmed Tijani benn catlaa ngi fii ci zawiya bi benn catlaa nga ca zawiya Cheikh ba ca Fass mu ni kon yéen waa Ndakaaru ku fi man di jullee say farata juróom na ko def ku ko mënul semaine bu ne nanga fi jullee benn yoon ku ko mënul weer wu ne nanga fi jullee benn yoon moom Sidi Tayib moo wax de ku ko mënul at mu dee na fi jullee benn yoon ku ko mënul ci sa dund na fi jullee benn yoon loolu nag moo waral sëriñ bii ñëw ziar si leen ndokkeel jàll leen d'abord suñu góor gu tedd gi ñu bokkoon lu ñépp te mi ngi fii toog dangeen ngeen ko gisul waaye mi ngi toog mu ñëw jàll leen ko masawu leen ko ziyaar leen juleen doog yéen tisbaar barkeelu ci bàyyi leen ak seen liggéey muy liggéey boo xam ne tabarakallahu ni mu doon doxe rek lay doxe bi Cheikh El Hadj nekkee moo ko géré woon bi mu fi jógee Serigne Babacar Sy géré ko su masaan nekk dakaar xadaratul jumaati bu nekk fii la koy def su xadaratul jumaatee mu génn ànd ak suñu papa alxaji abdul aziz ak mag ñu baax ñooñu ñoo koy escorté ba mu yegg si def xadaratul jumaatee bu noppee dem lu fi xewit mu wax ca xalaatam lu mu d'accordul mu ne d'accordu ci noonu la géré woon zawiya bi maa ngi am maari leet dox yoo xam ni ñaari leetar boo xam ni parce que leetar yi mu bind yëpp def nañ ko benn téere mu nekk nii mu ni warada fi jawaabin lahu ala ahli zawiyati bi dakar maa yali mu ni wasala ilayna rasulukum wa naibukum wa maahu kitaabukum amma alxalatu walxatau fa saamaxnaakum bihi qaala taala walkaadimiina alxayda walaafiina an innaas wa amma amru alimaamati fi naa'ibi aljadid فقولوا له نطلب منه أن يترك الإمامة لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح فوقاية العرض والبدن بترك السنة واجبة في الدين mu ni fatruku zawiyata ala ma kanat alayhi fi zamani alxaaji malik radiallahu taala anhu wa inna amra zawaya munkadirun walkadaru la budda min tasfiyatihi wala yaliqu bina an naskuta an amrin ma yufsidu cheyan fi zawaya fa kunu ala balin fi dalik luñ sa jukkee rek mu ni seen yonent ñëw na ak kileen représenté indi seen leetar mu ni fot bi ngeen defoon ak erreur bi jéggal naa leen ko ndax yàlla nee na ñii nëbbu seen mer ca bañ ko waree feeñal ak ñiy jéggale buñ leen tooñee mu ni mbiru imaama gi nag ci seen naayib bu bees bi nangeen ko wax mu bàyyi ngir jañ yàqu-yàqu moo gën bi ji intérêt mu ni te ñoŋal sa der ak sa yaram ci te bàyyi sunna waajibatun fi diini mu ni kon na ngeen bàyyi zawiya bi ca na mu nekkoon ca jamono Seydil Xaaji Malik mu ni na ngeen xam ni mbiru zawaaya yi dafa nëx te lu nëx dañ koy teeyal te du yàllu ci man man noppi ci mel mbir moo xam ne dafay yàq jàkka yi xam leen loolu bi ci des mu ni leen seen lettre yegsi na ci man di sàkku ndigal pour bind lettre chambre de commerce bu Dakar mais loolu ngeen di sàkku du sama xalaat te itam du lu ma tànn dëgg dëgg dëgg sama tontu ak sama ndigal mooy bu leen leen bind te bu leen wax ak ñoom ci loolu mu ni leen fot bu jëkk bi ngeen jëkk a def ci bind nguur gi di sàkku ci moom dara euh, ngir ñàkk xam sama siyaasa ak ñoom bëgguma ngeen dolli ci dara te maa ngi muslu ngeen dolli ci dara te maa ngi leen di xamal ne kat jullit deesul matt baaraam ñaar yoon ci pax kon moo ko tey mu ni kon maa ngi leen di li war mooy bu nu dugal suñu bopp ci kanu alkande gannaaw bañ ci yàlla musale mu ni li war gépp war mooy nu gàttañ lu ci sàkku dara ci ñoom luy niru ndimmal loolu defuñu ko ngir suñu bopp mais dañ ko def ngir suñu sëriñ Cheikh Sidi El Hadji si ngir daana sàmmonteeg tubaab yi daana wëndeelanteeg ñoom daana wut lu leen neex waaye ci beneen buntu nag bu dul sàkku ci ñoom dara mu ni mosu leen teg dara masu leen a yenn lu ñu attanul mosu leen ñaan dara rawatina lu jëm ci zawiya wala juma mu ni la ca seen loxo ya masul yuqamtiku jëm ca diiru dundam mun leen tëkkat maamoom dafay roy ilimaanam wasalaam muy ñaari leetar am na yeneen yeneen mat na fukki leetar wala ñaar fukk sax yëpp mu bind ko ci zawiya bi pour di leen jàjj di leen digal di wax nañu defe nii nañu defe naa euh, nañu moytu ndangam bu ñu def nii mat ñi di ñëw mu di wax déet defe leen ko nii def leen naa ilimaan dina nekk nii deme leen nii deme leen naa loxo mësu ci jóg ak xalaatam ak kaddoom ba ni mu fi jógee rakkam ju tedd ji toog den Alxaaj Abdul Aziz xam ngeen itteem bi mu joxoon zawiya bi ba di sori sori fii la daan jullee si fii lay ñëw yendu fi di wax ak yéen ba jant so di leen fàttali la Cheikh El Hadj daan wax la mu daan digle la mu daan tere di leen wax ni mu bëggee zawiya bi doxe ko di leen woo Tiwaawan di leen woo Jaksaaw di leen woo fii ci pom bi di tëralanteeg yéen di leen wax zawiya bi ni mu bëggee mu nekk benn zawiya bu xam ni bu model lay doon ci zawiya yi ci senegal nekk zawiya boo xam ni zawiya spirituel lay doon zawiya boo xam ne ku fi ñëw sa aaju ci wàllu yàlla wàllu ruux faju loolu alxaaji abdul aziz nekk woon ak yéen ko yàlla defal yàlla fay leen ci seen jataay seen teewaay seen coono seen cofeel seen itteewoo mbiru kër gi yépp na yàlla fay leen defal leen yiw yiw wudul jeex wu àdduna ak wu alaxira li cheikh alxaaji malik am ci àdduna ak alaxira yépp yal na ngeen ko bokk ak moom ak nun ñépp nu bokk ko moom ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ngeen baal ñu àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi. ñu ngi nuyu sunu wajuru tedd wi ci sama wet mu Thierno Mountaga di nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ni bii kilifa yi nga xam ni. ñëw nañ ci barab bu tedd bi fa tabaarakallaahu sama porte parole muy Abdoul Aziz daanaka waxal na ma lépp ma sànni woon tuuti ay baatu nuyoo ñu jéggal ma ma jàng ko dugg du du yàgg bismillahi rahmaani rahim والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله وصحبه ذوي الإرشاد والتعليم بعد إهداء أزكى التحية إليكم وأنم السلام امتثال قول تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها نحمد الله سبحانه وتعالى على ما هدانا إليه من نعمة الإسلام وأعلن سر المحبة wal mawaddati fi qulubi al iman wa baadu assalaamu aleykum jamian wa rahmatullahi taala wa barakatuh wal arsh wa sakanatu wal kursi wa namawaatu fadilatu cheikh al jalil alxaaj ahmad muntaqa taal asbaha samaati mashiqata wal muqaddamina wa ruasa dawaira ayuha al ixwatu almuslimuna wal ixwatu almuslimat uxayikum jamian bi taxiyatin xaalisatin tayibatin mubaarakatin baayisuha alwuddu walmahabatu waluxuwatu walixtiraam fa uxyi kulla waaxidin minkum bismihi wa aynihi wil manzilati laayiqati bi fa ataqaddamu ilaykum bi ziyaaraati daa illah taala an yubaaraka fiha wa yataqabbalaha minha وأنتهز هذه الفرصة الغالية المباركة لأهنيكم وأهني جميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر الذي احتفلنا به قبل أيام قلائل وندعو الله جل قدره وكرمه أن يعيده علينا وعليكم وعلى سائر الأمة الإسلامية ونحن جميعا على أحسن حال وأتم العافية والنمو والانتصار أيها الإخوة وكما تعلمون جميعا منذ أن التحق شيخنا العلامة وسند الوجيه الفهامة الحاج عبد العزيز سي إلى جوار ربه الرحيم منذ هذه الفجعة لم يسل لنا القدر أن نلتقي وخاصة في رحاب هذا المسجد الزاوية المباركة فعليه أغتنم الفرصة اللقاء هذه الأولى لأعزيكم جميعا ونفسي شيخنا مرحبا الحاج عبد العزيز الحاج عبد العزيز لا زال إنما الله تعالى في أهل التواضع الذي والتبرير ومن جانبها تقدموا بجزيل الشكر والتقدير والزيارة وإلى كافة الإخوان من كل الحضور مشيقة ومقدمين ومريدين ومشاركين معنا وهذه الاجتماع